Lamp Fall FM yéen njëkk a yëg xew ci xibaar yu leer. mbir mu doy waar xewati ci Touba Assulo faatu na garabu olof la nu ko jaaw mu naan ko génn àdduna borom këram àndi na ciy seede. mu nekk nag lu doy waar loo xam ne xewati na ci dëkk bu sell bi du Touba muy Assulo ginnaaw bi nga xam ne rek naan garabu olof mu nekk nag garab goo xam ne sunguf la woon moom Assulo nag ginnaaw bi mu ko naanee googalee garab nag euh, ci la amee ay jafe-jafe ba ñu ko yóbbu ko hôpital ca loolee nag ca la ñàkk bakkanam bay sëriñ loo di di borom kër ci Assulo ñu tawlikaat. mooy borom këram bi ñuy ndekki daal léegi après mu ne moom dafa si siburu deud ci la jog tàngalal ñu tangalal ma dekk ma dekk legi bi mu paré mu né dafa siburu ma ne ko siburu mun heure bi hmm. mu ne ma ah kay daal ñu yefi yi continuer wax sax na damaa naan garab garabu ndoxum siti dal hmm. ay ay sunguf la legi mu ne ma dama nan garab moma japp hmm. lol dal moko japp muy wocc di wocc di wocc ba bañu yobbu ko hôpital biñ ko yobbu hôpital mu ne fa fanaan fa ma xëyee ma dem ñu ne dañ koy radio biñ ko génnee ndekete bobo day am yaakaar na am na dal bobo dal defé na né andi andi walu agro ñu génne ko né woote né ana ñu mu àndal magam bu jigen dem hmm. ñu ne ko goor ñu ne mu ne leen jëkkëram nga fay ak magam bu goor hmm. ñu ñu bindu duggee léegi ñu ne no yena and ak aslo mu ne waaw hmm. ñu ne yoy borom këram mu ne waaw aslo dina wacc na liggéey ñu dina ci am wax nañ ne liko faat mom wax nañ gene nañ ko ci resultat yi wax nañ eh, biir bi daal moo yàq orgaat yi eh, rien problème rien rien yi ak yoy dal lañ wax waaw lo dañ mo mo lak do danañ wax mo gene resultat yi da woné ko ma daam ñen fukkat ak juroom dal à peu près waaw am na ñaari doom ay cheikh wala la ci am da dama fanan ci wal bu beut set ma jóge Dakar ñëw fi année ko boobu xawma lu may def sax mhm. waaw garab dal yo la ak ndoxum ci kan naan mom ko sëriñ bi jox fa ah, ah. nit ñi ci seen bop nit ñi daal ñoo wara a waaw ñoo wara a nit ñi daal ñoo wara a yeewu te bàyyi nelaw gi mhm. waaw lool rek la ci wax mhm. nit ñi seen bop dal ñoo wara a yeewu Sénégal daal que mbir mu doy war mi xew ci dëkk bu sell bi di Touba soxna da daanaa nag garab go xam dañu ko jaay mu mujjé ñak bakanam borom kërëm